bii ñu àndandoo jàng ko benn yoon bismillahi rahmani rahim bismillahi rahmani rahim maanaam ñu commencé rek nañ koy jéem a jàngandoo su ma waxee ba pare bismillahi rahmani bismillah bismillahi rahmaani rahiim léegi nag suñ ko essayé ni su ma waxee ngeen ngeen topp ci loolu laay jéem a seen ndax dina mën a nekk su ma waxee su ngeen di répété ngeen bu kenn xaar sama morom di waxandoo dañ ko bëgg a waxandoo ba pare ba xam na dina ñu jaaree noonu ndax dina dem wala déet mm-hmm. bismillah bismillahi rahmani rahim bismillahi rahmani rahim xam nga am na ñoo xam ne ba tey dañuy liir ba pare soog dañ koy xool ba pare soog a liir te dama bëggoon hmm. pour ñu dégg sama baat rek su ma paree ñu jànge ko noonu répété ko hmm. noonu ma ko te bañ a di hmm. ok bismillahi rahmani rahim. bismillahi rahmani rahim. waaw léegi nag fii am na benn technique bu fi nekk. Mhm. mooy kenn du wax bismi ba mhm. pare wax laahi sooy jàng bismillahi da nga naan bismillahi bismillahi bismillahi dañuy wax bismillahi bismillah bismillahi bismillahi léegi nag rahmaani rahim a ngi fi kon nag mu mel ni kon li loi yi santaane sooy jàng alquran sooy jàng na ngay jànge alquran ak sooy jàng rek arab bi ci alquran bokkul sooy jàng liir ngay jàng reading di read how to read quran ak mhm. sooy jàng façon bi nga war a jàng alxuraan ak sooy jàng commencé di jàng baat bu nekk koy riide kon nag sooy jàng liir texte bi bokkul da nga naan sooy jàng di wax texte bi yépp ñu ne la jàngal alxuraan da nga naan kon bismillahi rahmani waxal bismillahi rahmani rahim bon léegi li ci nekk mooy fii dafa am chadd chadd bi danañ jàng yooyu yëpp indi teel chadd dafa am fi fii chadd daf fi am fii tam chadd daf fi am du gis dinañ gis maa ngi maa ngi topp du gis nañ li may li may wane waaw waaw ndaxte chadd bi foo ko gis rek Mm. da xam ni lettre bu ñu duble mm-hmm. la su dee raa bi ñaari raa la su dee laa ñaari laa su dee raa ñaari raa léegi pour loolu pour loolu mu ne wey damay indi tableau bi ñu jëm ko jàngantu ndànk mm-hmm. fi ma doon waxe noonu ba daaneel mooy dama bëggoon ñu xam ni ñi ngi toll woon ci bis mi gis ngeen gis ngeen gaañ ñi ni ñu amee volonté ku nekk ngi bëgg a jàng ngi ci oto yi ci bato yi ñi ci palaay yi ñëpp la mbir mi noonu la mbir mi jàngoon la nga xam ni ku ci nekk rek war nga dem ba tàmm miin miinal sa bopp ni luy jot jot na mhm. nit oh. dafa war a góorgóorlu jàng ndaxte yàlla yaa ngi naan yàlla yàlla na ma yàlla defal xéwal ma mun am nu ma jàng yàlla nag mhm. mi ngi indi di pourvoir lépp luy xewal naka la koy transcender wala ñu koy illustrate into action mhm. ko illustrate ci ay format di leen ko jotal in many ways many different ways léegi nag nit ki moom mooy seet naka la koy gàttandoo loolu hmm. pour boole ko ci boppam muy àndaaleeg moom bu demee dina xam ni léegi yàlla mooy ànd ak moom fépp fu mu nekk hmm. oh, oh. ne nu yàlla di gën a ànd ak moom di nga gis ni si la la seytaane di gën a sori hmm. oh, kon nag yàlla nañ ci yàlla dimbali lii déjà mi ngi waaw mën nañu bind sax dem ba bind arrahmaani arrahimi mhm. kat day mel ni nuun te raala mhm. point def tomb def tomb mhm. kon nag lii lii ci suuf nii bismi bi la ñu jël léegi mhm. bismi bi lañuy jël kon nag bismu deux points suñu laajee lan moo composé bismu parce que ñu ngi jóge ci alphabet bi mhm. waaw nga gis ni kon léegi bii soo xoolee baat bi nga war ko décomposer kon na nga gis ni baa ngi ci siin siin mi ngi ci beneen bi miim miim miim waaw miim baax na mimara mimara wolofal la mooy mooy mimara ah. waaw kon nag baa waaw ñu def baa siin waaw Mim. Ba. Mim. Ba. Ba. xam kon mi ngi nekk fii baa baa ngi nii baa ngi nii siin ak miim donc lii moo composé bismi baa siin miim baa siin bu dee Sénégal ñu naan baa mi mara mi mara hmm. waaw miim bi euh, moo composé bismi bi euh, léegi nag mbir mi mooy kon pour taqale ko ba mu nekk bismi soo ko gisee ñaari ñaari stage la kon léegi ñu dem moo joxewaat lii moo joxewaat fii flèche baa ngi nii mhm. lii moo joxewaat bismi bismi ah mhm. kon nga gis ni baa bi ci suuf baa bi naka la nekkee bismi dañ koo def nii parce que ci ci début bi la mhm. kon nag fii dañ cee yokk benn liif ba pare liif bi moo ñëw tegu ci baa bi rek liif bi moo ñëw tegu foofu bon léegi nag nga def ni du question ni bii rek la ci alxuraan mooy bi commencé saar yi rek noonu nga koy bindee bon siin bi siin bi dafa ñëw mhm. siin bi dafa ñëw def ni siin bi su ci taqee mhm. bon léegi nag mais siin bi su ci taqee euh, miim bi dafa bugg bind kon nag miim bu ñëwee nga bugg ci def miim bi nii dafay jaxasoo parce que mm-hmm. dafay am leen loo xam ni nit ku ko xamul du ko mën a jàng mm-hmm. donc léegi nag li ñu def dañoo def mi bi la ñu teg kon nag siin bi nga xam ni moo ñëw tegu moo ñëw taqaloog baa bi kon baa bi ñëw na léegi siin bi day ñëw kon siin bi li dafa mel ni kon lii rek lañ ci jël Euh, dafa mel ni dañoo jël lii rek ba pare def ko nii. Ah. Ah. kon nag nekkatul. Mm-hmm. lii nekkatul mu nekk nii. Mm-hmm. nekkatul loolu. Mm-hmm. siin bi moo ñëw rek moo tax siin bi lañu tàllal nii te te fàtte li woon ci suuf lii. waaw lii dañ lii dañ ko fàtte lii. mu ngi noonu. kon nag siin bi ñëw léegi miin bi moom moo gën a simple nu muy rattaché woon mim bi moom day ñëw rek. day ñëw rek yokku fii waaw kon nag bis mi mi ngi noonu ba siin miim ah mu nekk ba siin miim waaw ban moo ci topp léegi ba siin miim ñëw na léegi bu ci topp nga gis ni bismillahi bii moo ci topp bii moo ci topp laahi mi ngi nii allah bismillahi nii lañ koy binde su fekkee ni moom kese la da allah parce que ku xam xam ni allah nii lañ koy binde allah nañu xam ni bi nii lañ koy bind muy turu borom bi kon nag bismi mooy tur ismu ci arab mooy tur allah mooy turu yàlla bismillahi kon ci arab lañ koy mën a understand lan lay firi mooy bi ismillahi ci turu yàlla waaye bii boobu mën na nekk ak turu yàlla waaye lan ngay def ak turu yàlla nga ne maa ngi tàmbalee lépp lu may def noonu lañ ko fire lépp lu may mën a wax mm. maa ngi ciy tam jiital turu yàlla parce que bi yàlla di wax ak yonent bi <laughs> ni ko dafa ni ko waxal sallallahu wa sallam dafa ni ko jàngal waxal ci sa turu boroom iqra bismi rabbika mm-hmm. kon nag lépp lu waay di war a def lu jullit di war muy yëngatu di lekk di jóg di toog dafay di commencer liggéey di tëdd yu commencé lekk danaan bismillah ah, gis nga ah. sooy rey xar sax sooy kii nga bismillahi allahu akbar ah, waaw tudd tur yàlla allahu akbar rek ngay wax de waaye da nga naan bismillah commencé si ci parmi allahu akbar noo tax nga bismillahi allahu akbar nga ni allah bi nan lañ ko composé gis ngeen ni jàng nañu ni liifa ngi fi liif fuñ ko gisee ci alphabet bi bismillah mu nekk bismi fu mu ci alphabet bi bismi bi baasin mim bi baa mooy baa mooy ñaareelu waaw lettre bi da nga naan alif ba alif ba mhm. siin nag eh, ana kan moo xam ba siin alif ba ta sa sa sa ah. oyof de sa na oyof sa sa ta ba ta fa alif ba ta sa jim xa xa dal zal ra ayn sin oh, sin sin ra ra za ra dal zal ra sin shin ku ko mën daal li nekk ci gannaaw ra ra za za za siin waaw za après siin mi ngi noonu siin siin fu mu mm-hmm. nekk laam mim no na kenn wax rek comme léegi li leen doon jàngal ci juróom-ñaar juróom-ñaar juróom-ñaar yi muy ñaata de vingt huit lettres. vingt huit mhm. waaw soo alif ba ta sa jim ha xa lu ci topp. ra daal zaal wax. daal zaal ra siin siin. ra zaay keneen na wax. daal zaal ali ra za waaw shin shin da ngay yem ci juróom-ñaar yi ba xam alif non daal da ngay yem juróom-ñaar daal zaal ra za siin shin mhm. saad saad du sat kenn doo sat saad Saad. maanaam S A A D. Saad. Saad. ni Saad fii tax da wax Saad. ah. Saad Saad. Saad mu mm. ngoog mu ngoog. Saad Saad. kenn wax Saad kenn du wax ni kenn du wax tamit saad kenn wax saad bu wow naan saad saad saad saad mais euh, circonflexe yi mu may la nga wax sood mi ngi mel ni comme fii danga ngay naan sood kon nag nañu bàyyi xel ci loolu sood hmm? waaw léegi léegi kon mim bi mi ngi ni daal zaal ra. ra siin shiin saad. saad saad. ku kuy mën a wax beneen série sept. sept yi ci topp ku mën a wax. daad. daad waaw. ta za za. in daad ta za. in. ayn. ayn. ayn. ayn. ฟาฟาFa. fa ak am na ku wax léegi xaaf ah fa xaaf kon nag ñooñu waxaat nañu waxaat keneen na waxaat li ñu wax léegi laam déedéet déedéet keneen na waxaat li ñu wax léegi daad daad waaw taa za ayn ayn ayn gayin fa fa xaaf xaaf mu ngoog. kaaf déedéet xaaf déedéet xaaf xaaf xaaf kuy commencé daad wax set keneen kuy commencé. daad. daad ta. to. ha. déedéet daad. il faut daad ta. waaw ta do. ayin. ayin. ayin. fa fa. kaaf. waaw. xaas ah, ah, xaas ah. xaas dee leen dimbali ko su ngeen di wax yàq mhm. yàq yàq mm. yàq bi ñuy seeñu yàq yàq yàq boobu mm. xaabee moo ko moom xaabi alif ba ta sa jim xaa xaa boobu xaa kooku yàq moo ko moom yàq yàq mm. waaye nag yàq yàq baal ma maara xaas maara mhm. faa xaaf xaaf bi yàq. allo. oui. du dëgg du waaw. waaw. xaaf bi moo ko moom. Mhm. yàq. waaw. yàq kon nag léegi li ci topp yàlla lan la lu topp ci xaaf. kaaf kaaf. kaaf. kaaf. laam laam miim. waaw miim. nuun. nuun. ha. ha. waaw. waaw. yaa. yaa kon nag miim baa ngi nii rek gis ngeen kaaf laam miim nuun ha wa mm-hmm. kaaf laam miim nuun ha wa yaa mooy sept dernières il faut il faut ngeen tàmmu. Euh, jàng ci seen bopp mémorise ko këru ko di ko mun a wax ni comme ndox mooy naan alif ba ta sa jim xaaxa daal zal ra za siin siin shin daal mhm. zal zo ayin xayin fa xaaf kaaf laa mim nun a waaw ya ah kaaf laa kaaf laam miim nun awa ya oh, ya ya kon nag allo Mara ñu jàll ci beneen xaaral ma mute am na ñuy nekk di wax fii ci suuf de bu leen di wax allo Mara su ngeen di wax dinañ leen dégg de waaw allo Mara defe naa yow lay waxal de dafa am dafa ma ne dama amoon question doo doo teg curseur bi ndax ñu mën a ràññee hmm. déedéet boobu dañ doon tari raaj kii wuñu woon de. yéen a doon tari li ngeen jàng. Oh, ok mais da ngeen nekkoon di jàng waaw da ngeen doon tari dama leen doon tari loo léegi nag pour ñu mën a dellu ci bind bi fii. kon ñu ngi toll woon ci léegi alif bi mm-hmm. allah bi lan moo ko alif lan moo ci topp allah bi lan moo topp lii lan la. lii lan la. laam. laam bi ñu laam kon lii mooy lii mooy bii mooy laam. laam. laam ak nii la ñu laam laam mooy lii ah. waaw léegi bii la ci ci topp nii. ah boobu tam laam la. waaw ngeen xàmmee ko beneen laam a beneen laam ñaari laam la waaw. ñaari laam la kon ñaari laam. allah allah. ah kooku ah. ah ah ah allah ah. waaw ah kon nag xaam ni xaam niñ koy bindee dinañ ko bindee façon yu bari am nañu yu bëri. Mm-hmm. am na rond bi am na. am na ñu koy bindee rond bi mm-hmm. ah. am na ñu koy bindee rond bi rek. rond bi mi ngi allah nii lañ koy bindee mais bu ñëwee fii bu ñëwee allah nii lañ koy bindee xaar. xam nga xaa bi xaa bi na ñu koy bindee beneen façon mooy di ngeen gis yenn saay su nekkee ci commencement lettre dañ mm-hmm. dafay changer mbind mm-hmm. bu nekkee ci ah. commencement lettre dama koy bind waaye loolu dina ñëw ci kanam dafay mm-hmm. nekk nii lañ koy bindee nii oh, waaw ci commencement lettre bon yeneen façon bind yi nag leen jaaxal ndax mm. mbindin dafa nekk dafa wuute selon waa koy bind ban style lay yor ak yooyu yëpp waaye daal hmm. da di xam ni hmm. suñ ko bindee nii hmm? mm-hmm. waaw ko ci Allah bi comme ci bi ah nga ni kon lu tax ñu koy bindee ñu ni ah, lii de xam naa li mu nekk ci mujjub baat bi parce que lii moom moo mujjug baat bi moom mooy nekk xaa bi rek c'est dañ ko mun a rafetal parce que xaa bi xaa bi soo ko bindee ci diggu baat maanaam nga bindoon fii kaaf mhm. bindoon fii siin nga bëgg wax ni xaala nga bëgg a wax ni lii xaala mhm. dana confuse nit ñi mhm. ah. léegi moo tax nag liñ ko mujjee xalaate ñu ni règle bi mooy su dee xaa dafa nekk ci diggu baat dañ koy binde nii moom rek moo ko moom ci digg bi ci nga gis ni nii lañ koy binde kon ndax lii dafay niroog lii dafay niroog miim miim aha bon léegi nag ñu dellu kon kon nag xaa bi mi ngi nii nañ ko bàyyi nii xaa xaa bi moom mooy xaa bi rek kon nag mu mel ni allah nee nañu kon liif la alif la laam laam laam laam xaa alif laam laam laam laam jàngu la laam soo jàng ci arab bi soo nee laam laam duñu xam li ngay da nga naan alif. alif laam laam laam. laam ha ha. waaw. alif. alif laam laam laam laam ha. moom mooy moom la ñu. allah allah. kon nag allah loolu la. bi ci topp ñu ne arrahman. arrahman ñu ne kon nag lii arrahman ñu ni nii lañ koy binde hmm? kon nag arrahman mu mel ni lii lan la alif bii nag laam laam laam laam lii raa raa lii xaa déedéet xaa uh-uh. du xaa alif laam naam lii laa wax lii bii bii bii wrong lii laa wax ah xaa ku ma mën a wax lan la du xaade non xaa ah xaa déedéet du xaade du xaade du daal bu rafet la bëgg arax maan bii laa wax bii bii du daal daal. déedéet. ah. ah. ha. ha mu ngoog ha. ha. xaala. ah xaala du dëkk. yaa ngi leen koy dindi quoi comme comme. donc. waaw ah, waaw kon nag gis ni lii lan la li ci topp bii. miim oh. miim. miim bii nag. nuun. musoo ko gis bii. Bi não. Bi. Hã? Uh, Ma. Uh. Alif. Usul. Uh. Xam bi bi. bi. bu ndaw boobu. ali alif. waaw alif la. alif la. waaw. mooy composé maan bi maan. parce que alif la léegi nag. Mhm. rahman bi. Mm-hmm. yenn saay dina nekk lu tumburanke dinañ ko bindee raxmaan dina ñëw yenn saay ñenn di ko bindee nii mm. lii bi ñëw na laam ñëw na mm-hmm. raa ñëw na xaa ñëw na mm-hmm. miim ñëw na alif bi ñu def ko nii ah. alif bi mu ñëw fii séparé ak ñun séparé waaye nii mooy bindin bi nga xam ne moom lañ ko war a bindee Mm. bii nii nii. arrahman. nii lañ ko a bindee. Hmm? alif bi day nekk na la ci kaw. waaw day nekk ci kaw. parce que ñenn ñi li tax alif bi nekk mooy ñenn ñi ñoom xam nañ ni yenn saay dañ koy liire alquran ñenn ñi ko liire comme arab. Mm. te nag su dee arab bi mm. xam nga yenn signes bari soxla soxlawu ko ñoom dinañ xam. kon nag rahman am na ñoo xam duñ ci boole alif bi am na ñoom dañ koy waaye ñun ñu tàmm dañ koy boole alif bi pour xàmmee ni. Mhm. dañoo war a mhm. xëcc lii. arab bi mhm. mi ngi mel ni ci ci arab am na ci yoo xam ne suñuy bind beneen euh, baat bi ñuy wax haza ah am na ñoo xam ne nii la ñuy bind duñ ci def alif parce que xam nañ ni nii parce que xam nga arab bi mu doon ci amul ponctuation rafetal ko pour mun a xam di ko rafetal ci design bi moo tax ñu bari di ci def ay virgule ak deux hmm. points yooyu yëpp ak ay kii waaye yu bëri yooyu yëpp parce que kiy jàng du basé wu rek ci day basé wu ci day référé wu ci grammaire bi pour wan ni ñaari hmm. suñu toppantee ñetteel bi lii kon nag moom xelam noonu lay demee bon léegi rahman bi pour décomposer ko da ngay gis ni kon wax nañu tudd nañ sànq ni ba leen ma kat man kat damaa sojo soj ba xaw ma foo nekk léegi moo sa sama baat dem damay léegi alif hmm. ak laam ra ra gis nga xaabi moo nekk xaa mm-hmm. xaabi ah la ñu wàññi noonu waaw bi ci nekk nag miim miim alif baa ngi nii alif mm-hmm. ak nuun bi Mm. jarul ngay def tomb bi ci nuun mun nga bañ def tomb mun nga def tomb. ok. bon arrahman kon nag lii la. arrahman. léegi ñu taqale ko soo koy taqale nag kon rahman da ngay gis day ñëwaat nekk alif baa ngi nii andi ko. Uh-huh. laam baa ngi nii andi nga ko. waaw mais kon da nga koy pour mun koo taqale ak raa bi. Mm-hmm. mun ko taqale ak léegi xaa bi ñëw <clears throat> xaa du mën a taqaloog raa bi mm, mm, mm. gis nga kon ni mu jaxasee bind bi day jaxasoo waaw mm-hmm. waaw kon nag xaa bi dafay taqaliko parce que mënul mm-hmm. ci ànd bi la bokk mm-hmm. waaye kon day commencé mi ngi nii nga def xaa bi mu nekk nii doo toog lunkal nii parce que day jaxasoo tam waaw ah. ñu rattaché ko ci miim bi waaw xaa kon su nekkee ci euh, début lettre Mm-hmm. début mot mm-hmm. ci début baat mën nañ ko bindee nii nii lañ mm-hmm. koy bindee kon xaa su nekkee ci début baat kon nag nii lañ koy bindee ah su nekkee ci début baat nii lañ koy bindee nii lañ koy bindee mi ngi ngeen taseeg foo xam ne dafay nekk ci mujjub baat ndax mujjub baat nii lañ koy binde foofu dinañu tas dinañ ko binde neneen su fekkee ni nekk na ci mujj baat mun na nekk nii comme ni mu woon nii li tax mun nañu wax ni <coughs> madaxa miim da del wala sax bon euh, ñu seet beneen boo xam ni comme sama samaxa beneen baat boo xam ne xëy na yeggaguñ ci benn baat comme samaxa gis nga day teg kon nag mu nekk nii soo dekkee ci ci ci ci bindum uh, wolof di nga gis ni ñoom daan nañ ko bindee nii daan nañ ko bindee def ko yenn sa nga gis ñu koy bindee nii siin miim ba def nii oh, mhm. waaw mi ngi noonu xaa waaw mi ngi noonu